doon jooy nag mooy li nga xam ne ni maanaam li lëmbee àdduna bi mooy euh, feebar bi nga xam ne moo nekk ci réew mi te woon ñu fi woon fi moo di yëpp depuis six mois depuis trois mois depuis quatre mois te l'état état bi ci boppam deful benn effort ci ñun du dara loo xam ne dimbale nañu ko ndimbal lii ñuy wax ndimbal lii nga xam ne ñoo ngi koy dégg di ko wax gisuñ fi kenn koo xam ne ni ku gis ku ci am la ñëpp inscrire nañ ba sonn mais daf cee am loo xam ne nii ñun fii dañuy natt suñu bopp ba xam xool ba xam ñun maanaam lan la ñuy tekk ci réew mi parce que li ñuy dugal di dugal plus de mille e quelques milliards par an ba noppi ñëw ba fii c'est la première fois ñu am ay jafe-jafe depuis ba Modou Modou de Modou ba léegi te booba ba léegi gisuñ ci dara loo xam ne ni maanaam état bi wax na ko wala defal nañu ko loolu lañ doon joytu ci sëñ bi moo taxoon ñu ñëw fii ñun ñëpp mënatuñoo billets yu daan jar deux cent cinquante mille ak trois cent mille francs ñu ne ñu ko jaayee huit cent mille francs te ba noppi maa ngi dégg ñuy wax naan vol yi buñ ci dee dugg vol buy def cent soixante personnes moo ciy nekk amul barki démb sunu gars yi ci dugg vol bu fees dell lañ demee. amul benn distance amul benn kon maanaam li ñuy jaayee billet ci boppam teguñ ko fenn te loolu yëpp Air Sénégal dong la ak Air France ñoo ko dox waaw vol yi am nañ ci jafe-jafe njaboot gi jafe-jafe yi ñu ci am dafa ëpp ndax fi mu nii nii seen compte ñetti weer seen boutique yañ daan jëlee lañ daan jëlee dépense dañoo dagg seen dépense ndax borom bitig it bu la dee jox dépense pendant trois mois munoo koo fay bu yàggee tamit métti ci moom ndax bitig bu matul un million matul deux millions nga di ci jël trois cent mille francs par mois métti na ci ñoom li ñu bëgg mooy ku ñu jàppale dimbale ñu man waxoon naa ko fii na buñ ñu mënta dimbale mënuñ ñoo jàppale ci ay vol yu ñu delloo mais nañ ñu dimbale demal ñu xaalis ñu dem bu ñu demee ñu liggéey fay incha allah loolu daal la ñu amoon ci li ñuy wax